imam Ndao fii nañ ko rey benn imam fii nañu dagg boppam nit jug na fi naan day dem julli julli jumaa ñu tere julli kenn waxu ci. jërëjëf ñu ngi jégalu ndaxte dañu war a jox ak suñu ay ndaw daaw la ñu ngi leen nuyu. ah Bamba ñu ngi daa mel yaa ngi ci mango jekk ay zaaru ndarka soog yooyu. <laughs> waaw waaw yooyu de daa daa mel ni Ziguinchor dëkk bu neex la ndaxte foofu gis naa ne bëri na ay mango ki yooyu. waaw tey de am nañ chance euh, euh, ba dugg si nga xam ne mooy ci côté àllu Ziguinchor bi. boo wa euh, boo weesoo aéroport bi. ay sincèrement dañu ko doon dégg rek mais réalité bi nga xam ne moo fi ne mën nañ wax ne Ziguinchor sonn na dëkk yi nga xam ne moo fi dàq si wàllum gàncax wala si loo xam ne tey. côté économique buñ ko exploité woon mën naa wax ne ndaw Ziguinchor waratul jóge fii di dem liggéey ji feneen hmm. wala li nga xam ne moom la fi gis na xam boo fa demee da ngay seetlu ne euh, la nga xam ne moo fay bi anim ga nga xam ne noonu la ñuy waddee rawatina la xam ne moo di mango bi naam am na ñoo xam ne ñoo fa nekk di exploité waaye la ci koy jàppal ne day wadde yàqu aussi da ngay dégg ne tey def nañ la tuuba jéem waxtaan ak ñoom par rapport ak biir dëkk xam ne moo di Ziguinchor boo xoolee li nga xam ne moo di derkese bi naam la ñuy dagg du leen lu dul ne moo di naamaraat bi bi ñoo ngi koy jaay li nga xam ne moo di kilo trois cent derkese bi dañ koy di ko nar oh. di ko di ko def li nga xam moo di kaju boobu nag xam nga kaju <laughs> waaye man moom man moom tey ñam naa si bu bees bi ñamuma nag bu fermenté bi waaye bu bees euh, naa ko waaye boobee nga xam ne buñ ko buñ ko buñ ko naree dañ ci ko waaw dencee fépp semaine mooy doon li nga xam ne moo di sëng wala vin moom la nit yi euh, di naan en tout cas euh, tey déglu nañ leen mu doon àll boo xam ne yaatu na waaye doon àll boo xam ne am na ñoo xam ne ñoom ci liggéey waaye ñoom seen biir la ñuy demandé du leen lu dul ne état bi war na mën a exploité li nga xam ne moo di àllum Casamance bi mhm. ndaxte bëri na loo xam ne comme gàncax loo xam ne moo koy waddee lu bëri day mujjee yàqu te ak seen gi nga xam ne moo di Ziguinchor waroon nañ cee mën a liggéey mhm. voilà jërëjëf merci beaucoup Daouda ci taxawaay bu am solo boobee donc d' abord maanaam leen fi bokk na ci euh, Ousmane Sonko ab diir mi ngi foofu ca diwaanu Ziguinchor. Euh, mm. tey lan nga ñu mën a wax ci dëkk bi est que toujours li fa amoon ci wàllu bunkerisé yooyu mu ngi fa wala situation bi am na lu ci changé. Euh, moment bi nga xam ne moom la ñuy wax ak yow ñoo ngi fi nga xam ne moo di Néma le leader du parti Ousmane Sonko fa la dëkkee mën nañu wax ne fi ñu nekk ak moom mu ne jàppal ne soriwul te lépp lu ko yëngatu mën nañ koo dégg. waaye mën naa wax ne moom ma aussi bi ñuy génn gis naa ci suba am na ci ay porte yu maanaam tijji woon nañ waaye fi ñu ni euh, comité de veille bi tàmbali waat ñëw naam bàyyi woon na sax yenn oto yi maanaam léegi population bi waaye tàmbali nañu tëj euh, euh, tëjati li nga xam ne mooy yoon ñi nga xam ne mooy jëm kër Ousmane Sonko naam nag ñu ko waxee ne depuis bi ma fi ñëwee ba tey liñ ci bën kër yi de loolu moo fi nekk waaye amoon naa ko mooy ñuy bàyyi nit yi ñu tàmbalee circuler waaye d'après les informations lañ jox moo di dimanche tey lundi ba ca mardi jàppal ne képp ku ñu xamatul jàppal ne mënatoo jàll fi nga xam ne mooy yoon ba jëm kër Ousmane Sonko. Hmm. kon daal xale yi dañuy delluwaat ci seen mënin. ah ñoom daal euh, seen i kàddu gisaguñu ñu ñu yëngatu wala noo xam ne ñu manifester waaye gis nañ daal ay ndaw ñoo xam ne dañoo sooglewu nëbb seeni i kanam bëgg ñu kenn gis leen. waaye taxul ne dañ ca wax du leen lu dul ne moo di domicile lu kër Ousmane Sonko moom ah, maanaam domicile lu Sonko kenn mënu faa yegg ah, boo xoolee peut-être ci tali yi mën ko tëj li nga xam ne moo di ay xeer wala wàccee li nga xam ne moo di ay garab waaye kër Ousmane Sonko jàppale foofu moom na ma ko waxee woon la fois passée ay tànk ceeb duñ ko tëjee te ah, comité de veille bi sécurité bi dafa gën a yokku naam mën nañu wax ne ci distance ak li def takk der yi bëriwul waaye dañ ko tëj de telle sorte que kenn mënu fay jàll waaye booba fay aussi bi ma fi ñëwee ma takk der boo xam ne rombagum na euh, Néma wala rombagum na fi nga xam ne moo di hôpital de la paix ngir dugg fi nga xam ne Ousmane Sonko fa la dëkkee. démb gis nañ ngeen waxtaan ak ñenn ci ndaw ñooñu mu ne 19 ans lañ am dèjà ñoom bi ngeen waxtaan ñoom lan leen gën a wax yan kàddu lañ leen dénk. Amadou mu doon loo xam ne euh, lu doy waar par rapport ci wàllum discrimination. ak engagement yi nga xam ne moom la ñu gis ci ndawu Ziguinchor dañ ciy waxtaan ak ñenn ñi pour ñu def liggéey boobu naam yombul dañuy waxtaan ak ñoom présenté wu ba ñoo xam ne ay taskatu nga dégg ne ñu nag ñoom ñu naan ne ñoo far ndaxte ñoom lépp lu fi mënta xew au niveau national international dañ ko war a yëg waaye da nga ciy dégg am ndaw ne la man am naa bac maa ngi université Assane Seck wala nga dégg nit mu ne la damaa jógee na wala nga dégg keneen mu ne la man jugeewu ma biir Ziguinchor jàppal ne dëkk yi nekk ci wetu Ziguinchor fa laa jugee Kassikiri wala Oussouye waaye ñun ñëpp lépp lu ñu jàppoon dañu koo bàyyi ñëw fi nga xam ne moo di Ziguinchor rawatina fi Ousmane Sonko dëkkee te ci ñeneen ñu aussi da ngay dégg ñu ne la ça wala ça fait trois jours nii maanaam sanguwuñu wala demuñu dikkuñu ñoom benn objectif rek la ñu am moo di tëj fi nga xam ne moo di neema ba kenn du ci bën jaar en tout cas booy wax ak ñoom da ngay xam ne ñii lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi waaye aussi nga gis ñoom gëm-gëm gi nga xam ne moom la ñuy waxee waaye dëgg bi nga xam ne moom la ñuy wax waaye aussi da ngay dégg si ñoom suñ toll ñu ngi ragalatuñu dara ndaxte ñoom jàpp ne jamono gi lépp lu ñëw xam ne yàlla la waaye ñoom benn mission la am fi ñu toll moo di le leader de Pastef Ousmane Sonko ñoom ñoo ñee dañ ko war a taxawu ndaxte da ngay dégg si ñoom ñu ne la moom dernier taat wala nga dégg ne kii maanaam li ñu politique doon jaay Ousmane Sonko bi mu ñëwee da koo changé te jamono gi mën nañu wax ne état wu Sénégal bëgguñu ko mel ne Ousmane Sonko ndaxte moom li muy woote du lenn lu dul ne moo di euh, bonne gouvernance mu bañ am waaye nekk tey réew yi loo xam ne lu ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu tax nag ñoom ñu ne euh, kookee mën nañ jàpp ne seen avenir moom moomee moo ko yor loolu tax ñoom ñooy nekk bouclier bi nga xam ne ñoo koy njëkk a protéger. Hmm. Euh, ginnaaw déclaration Ousmane Sonko naka la ko askan ci gi coor jàngate. waaw sax loolu aussi am nañ sens ginnaaw bi nga xam ne Ousmane Sonko génn na naam moo ngi doon jaajëfal waa Ziguinchor ñëwati woon na si kàddu yi nga xam ne moo jëm ca wàllum Casamance ne tey Casamance ci Sénégal la bokk naam euh, boo xoolee am na ay fan si ginnaaw am na politicien bu génn wax ci waxi Casamance dem am ñuy posé question ne ndaw ñi fi nekk ndax ñoom euh, Casamance lañ dëkk wala du ay rebelle li baal ma si kàddu gi waaye ñoom euh, biñ ñu dégloo Ousmane Sonko ñu suñu micro. lu ñuy wax du leen lu dul ne euh, mën na jàpp ne Ousmane Sonko discours yi mu def wala waxtaan yi nga xam ne moom na def waxtaanam bu mujj gi dafa doon waxtaan bi nga xam ne moo ci gën nga dégg nañ ñoom tey Ousmane Sonko teel na waneti na ne Casamance ci Sénégal la bokk waaye aussi tey boo xoolee Ousmane Sonko ni nga xam ne noonu lay waxee ci yoonum Sénégal waaye ñoom it dégg nañ leen ñuy wax nee neen ndax Ousmane Sonko dafa teg des conditions pour dem fi nga xam ne moo di Ndakaaru bu nekkee ne bu demee Dakar dinañ ko bàyyi mu jël yoon bu ko neex dem wuy ji tribunal euh, boobaa aussi maanaam tribunal def na ko xam ne moo di liggéeyam ñoom lañ ci wax du leen lu dul mooy Ousmane Sonko bu mu dem ndaxte dañoo jàpp ne euh, état wu senegal wala ñu nga xam ne ñoo yor yoon ñoom lu ñu wax duñ ko jëfee looloo tax nag ñoom ñu ne euh, bu ñu sañoon du fa dem fii daal Ousmane Sonko jàmm moo ngi fi na fi toog na ko fee bu ko demee day seetlu dañ koy buntu xatal waaye fii bu ko toogee jàmm dina dem en tout cas gàttal daal lañ la mën a wax. Hmm. discours bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko wala wax ñoom jàpp nañ ne doon na waxtaan yi ëpp solo ndaxte Ousmane Sonko bëri na loo xam ne yaatalaat na ko waaye Casamance eh, eh, maanaam Casamance bi nga xam ne fa la dëkkee njëkk ci na ci ay kàddu loolee ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci Ziguinchor daal doon na kàddu yoo xam ne ñoom rafetlu nañ ko. Mhm. leneen it mooy est-ce que for ay conditions keroog bu doon janoo ñi nga xam ne wala bu doon seq benn interview ak groupe Walfadjri. Hmm. booba tey eh, a nga xam ne ñoo di wala ñi nga xam ne wóor na ma ne. ñoom ak Ousmane Sonko ñoom ñoo nekk euh, Dakar waaye aussi ñoom ñoo nekk ci nga xam ne mooy ci Ziguinchor am na ca koo xam ne laaj naa ko ko sànq ne ko ndax euh, euh, ndax Ousmane Sonko day dem waaye ñoom ba tey amaguñu lu leer luy wane ne Ousmane Sonko day dem mais aussi ñenn ñi nga xam ne aussi ñoom ñuy liggéey Ousmane Sonko d'après les informations am na ci ñu bëri ñoo xam ne tàmbali waat nañ ñëw fi nga xam ne moo di Ziguinchor am na ñoo xam ne jot naa des informations ñoom it suba dinañ fi ñëw. loolu yi di euh, samp laaj ndax ñooñu euh, dina ñëw ndaxte ndax ndax Ousmane Sonko dina dem booba tey daal ñoo ngi demandé di laajte rawatina ñi nga xam ne boo ci ay jege ñaale waaye kenn ba tey mënu see yëy mënu see yàbbi mhm. moo tax ñun sax dañoo toog ak di leen bàyyi xel di xam wala nekk fi nga xam ne mooy Ousmane Sonko fa la dëkkee nekk ci mbedd bi pour rek mën a xam information yi nga xam ne moo ci wàccee mais ba fi ñu toll nii xamaguñu confirmation Ousmane Sonko dina dem wala demul loolu daal ñoo ngi koy samp euh, ay laaj ci mi nga xam ne ñoo di ay jege ñaale waaye ba tey kenn yëkkati ci tàbbi. Mhm. Euh, am ngeen école ay avocat ñëw nañ fa ab diir wala forloñ ci dara. Euh, fii mën naa wax ne gisuñu fii ay maanaam maanaam ay avocat yoo xam ne ñëw nañ fii ci Ziguinchor waaye am na ci benn avocat boo xam ne ràññee woon naa ko ci ginnaaw gi nga xam ne lu toll ci ñaar fukki nit ñi nga xam ne dañ doon jàppoon fii bi ñuy manifester mooy ci projet bu njëkk ba la woon ci benn avocat Ousmane Sonko moom moomee moo doon layal ndaw ñooñee ba nga xam ne ndaw ñi ñu bëri wala ñetti ëpp ñoo ñooñee bàyyi nañ leen euh, kookee di avocat Ousmane Sonko gisoon naa ko fi waaye booba euh, loo xam ne gisaat nañ ko fi liñ ci daal gis du leen lu du nekk moo di sécurité Ousmane Sonko ñoo ngi fi ñi muy àndal di gën a liggéey ak ñoom ci wàllum communication ñoo ngi fi ñi nga xam ne ñoom ñoo teg ak bouclier nekk ci wetam ñoom it daal lañ la mën a wax ba tey ñoom ñoo ngi fi nga xam ne moo di Ziguinchor rawatina fi nga xam ne moo di Néma foofu Ousmane Sonko dëkkee. en tout cas jërëjëf merci beaucoup Daouda Djigal nuyu ma la tima ah, di Feuz di nuyu également Ngoné Abdoulaye PDG ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi foofu ci diwaanu Ziguinchor. <laughs> jërëjëf Khadim ñoo ngi lay jaajëfal jaajëfal les internautes la PDG moo ngi moom moom moo ngi door a génn xam ne dañoo demoon ci àll bi. <laughs> waaw en euh, nekk nekk leen foofu rek ñu nekk ci aussi di sàkku ay ñaan. lépp loo xam ne moo di information wala lépp loo ne moo ci war ci jàpp leen dinañ leen ko a jox. Daouda parce que moo ngi def liggéey solo. Daouda. waaw naka affaire histoire bi ñu dugg bi parce que gis naa à Dakar que yi ñu ngi commencé di ci di ci am benn affaire tout est-ce que foofu c'est Euh, ni ma la ko mën a waxee jamono bi ma toog nii di wax ak yow jàppal ne kama jàkkaarloo moo ngi jaay bi ñu dugub maam kata la doon jaay rakkam bu jigéen moo ko doon jaay waaye moom fi ñu toll nii moom mi euh, tàmbali na koo jaay waaye fi nga xam ne euh, fi nga xam ne fi nga xam ne la ñu nekk moo di sincère jàppal ne ndaw ñi aussi wala ñi nga xam ne ñoo fi nekk gis nañ ci seen bopp sincèrement et loolu moo di réalité bi en dehors que discours Ousmane Sonko bi en dehors que li mu ne dafa bëgg euh, beñe dugub te moom la xëddee jàppale doon na commerce boo xam ne aussi tàmbale naa dox bu a baax fii ci Ziguinchor. en tout cas merci ñu ngi lay gërëm di nuyu bi nga xam ne ñoom nga nekkal foofee eh, yenn ci ay information yoo xam ne du ñàkk di ngeen ko for fii ak suba. jërëjëf jërëjëf xam naa ne ñoo ngi xool aussi. dañ koy puus wala puusuñu ñu subaat. jërëjëf merci en tout yow sama biiram nga yow moom frère en tout cas merci beaucoup Daouda euh, Jigal ñu koy gërëm bu baax a baax mu nekk suñu confrère gërëm lay PDG euh, moom mi nga xam ne mooy suñu ndaw bi ñuy yónnee foofee ca diwaanu Cigi Coor mi amal liggéey bu ama am solo macha allah di gërëm Ngoni di gërëm Feuz di gërëm également euh, ki nga xam ne moo di Mohamed ñëpp ñi nga xam ni foofu ca diwaanu Cigi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ñoom tamit ci liggéey bu am solo bi nga xam ne Euh, ñu ngi wéy di ko ànd ak ñun xam naa rek peut-être euh, ñu jël benn ba ñaar bala ñu yëkkati li nga xam ne moo di jotaay bi parce que actuellement euh, heure bi mi ngi xaw a dem te demee je pense qu'il nous faudra peut-être d'être là à 10 heures pour bi ànd ci ak yéen le temps également ñu jël kenn rek dal di yëkkati jotaay bi donc ñu leen bu fekkee baax na salaamaaleykum. allo. allo oui salaamaaleykum.